am na ñoo xamante ne seen xaliss poste lañ ko denc normalement banque yépp a war a tëj banque yépp am problème war a am problème ba mu des poste pourquoi poste bu amee problème rek mooy seen état c'est l'état le plus nul du monde incompétence su Macky Sall la moom mooy wone moom moo feeñ ci poste poste bi nga xam ne seen yëf la seen yëf la yéen yen a moom poste tey boo leen xoolee ba poste bi nga xamante ne yéen ko moom Macky Sall foqati ko ci yéen parce que daf koy foqati du ñu fay dara dem yóbbu ko pour Aliou Sall moom ko y a un problème yéen a moom post fii France boo demee poste moo nekk banque bi nga xamante ne ah baadoolo baadoolo bu amul dara dara dara dara dara dara dara dara mën na am compte post poste boobu lañu ñu nar a jël jox ko Aliou Aliou cochon première communion ci 6000 milliards yi mu ñu sàcc Cheikh maa lay nuyu bu baax baax 6000 milliards bi mu leen il faut mu am fu ñu ko dugal am na lu ci banque de Dakar cochon moo ko moom. léegi lolu loolu doyut dañuy ñëwaat encore fukkati sen sen poste ñëw momal ka sen bop léegi ña fay liggéey dañuy ñëw ñu dàq leen ñu ne poste daanu na ñu wat beneen patron parce que ñoom ñoo ko moom bu leen neexee ñu dem jël ji ay ghanéen bu leen neexee ñu jël ji ay syriens bu leen neexee ñu dem jël ji ay tubaab bu leen neexee ñu jël ku leen neex ñëw embauché sénégalais yi fay liggéey ñàkk liggéey. te loolu lan moo tax mu koy def Sénégal parce que dafa am ñoo xam ne dañuy toog tey seen kër bu waa poste di manifester ñu ne non non nous on va pas y aller parce que ça ne nous concerne pas yéen a ko moom ngeen dem ànd ak waa poste manifester yéen a moom poste ngeen toog seen kër yéen a moom poste poste bobu wara nek l'avenir de vos enfants parce que sen domi fi xalé ndaw yi dogu juddu yépp ñu ci gëna bari ubbi nañ la compte poste poste moo nekk compte banque bo xamantene ne agent yi ci le gëna yombé tay bala ngay xamné suñu poste mo incompétent courrier bu baax mënoo ko fa yónnee ba mu yexi tay suñu suñu poste tay Sénégal ni sax du dem sax mën naa xam ak yónnee benn courrier poste parce que ña fa liggéeyu ñu normal yu bu baax ba tay poste bobu lañuy jël jaay ko. Macky Sall lu tax ñu bëgg jël poste dem ko banque de Dakar parce que Macky demagul on a parlé des faux billets banque de Dakar bu moomee poste boobu noonu ñun mën nous fa yóbbu suñu vrai billet ku Alioune Sall ñu changer ay faux bu boobaa ñoom ay multi multi multi multi multi multi milliardaire la ñuy ñun ñooy dee ndóol moo tax ma ne leen Macky fa mu jëm ak yéen ndox amu fa Macky dafa nekk di togg troisième mandat am mais nag tey dinaa leen indi nouvelle bu neex a neex a neex donc Sénégal nee naa Macky Sall ñu judd 1960 ngeen baal ma de mais ñi ci maîtriser internet bëriwul Macky Sall parrainage mi yëpp parrainage u APR yëpp laa yor xam naa fan la ko jëlee man maam une bonne partie bépp maire bu Macky Sall lebal xaalis période élection contacté ma bu fekkee ne parrainé woo Macky Sall te mu def la ci liste parrainage am da ngay dem porter plainte bépp maire bu Mame Mbaye Niang lebal xaalis ci période élection bi j'ai la liste on travaille là-dessus avec des avocats internationaux wolen ma bu ñu retrouver sen tour ci parrainage té signé woo ko vous allez porter plainte après am na yeneen yu may liggéey ci souf pareegu ma mais ñaari catégorie nit yooyu noonu mooy ñëpp ñu recevoir financement période d'élection yi te joxe seen pièce d'identité vous pouvez me contacter un par un Vous pouvez me kan Accès ak numéro d'identité à distance. day contrôler contrôler à distance ñun diaspora contrôle bu neex lañu Et def retrouver ba contrôle ba dañ koy espèce de tricheur d'élection nee nga dangay togg troisième mandat du ñor de moo tax Dior Diagne yónneewaat jeeg bu ñàkk fayda boobu noonu duñ ko tontu ñun on trace moom mun naa dem jàngaat quelques mots en français surtout bonjour ni ñu koy waxee en français. mun na ko commencé waat dundaat Californie mun na dem jàng ji monsieur tu m'as cogné xool la lay naka lañ koy waxee ci français ñun dañ leen tontu pare nañ ci yéen parce que ñun. nekkul entre ñun et les Maccudo déedéet ñun entre ñun ak Macky Sall la. Dior Diagne doo fi am jojo on a tout foogoon ne ne yéen rek yéen a bandi bandee leen man ba ma xamee ne ne ñun bañ ciy travailler ça fait des mois ba ñu gisee Macky Sall commencé joxe parrainage yi Macky Sall ci biir tey euh, coalition. benn bokk bàkkaar bi am na fa six candidats yoo xam te ne maam la ñuy liggéeyal six nit yi nga xam te ne Macky Sall la war a investir man la ñuy liggéeyal lii xew ca coalition bi yëpp dañ ma koy wax. nañu lijjantee seen parrainage yi yëpp ñoo ma ko wax léegi dafa am logiciel boo xam ne fa la ñuy enregistré seen parrainage yëpp booy dugg xool rek yaa ngi di nga am liste parrainage waa APR yëpp. tout tout en direct lañ la kay defal Macky en direct kuma wo damay dugg ci liste bi kuma mbay ñaa lebal xaalis mu ne ma bii koñ la dekk damay dugg ci liste ba xol koñ ba ma xol tur bi ne ko ana lim la lebaloon mu ngi est-ce que da ngaa signer parrainage mu ne ma déedéet croix comme ça on va savoir le nombre de personnes yi nga xam te ne ngeen sacc seen carte d'identité dem def ko ci parrainage liste parrainage yi. xale yi nga xam tane ñom la Macky Sall investir ci biir partem ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar bi xale yi nee nañ ma paa yi dañuy nandité nandité lu mais nandagu ñu internet au fait <laughs> ñu né Macky Sall pour mom nand na de ba ci ñi nga xam tane ñom la yónni ñuy saga ci internet bi amna na ñoo xam tane chaque jour dañuy dañuy dañuy toucher 5000 ñi 10000 par jour. xale yi laa la wax nee nañ ma paa yi naan duñu dara ci internet bi li muy ñàng-ñàngul Macky Sall xam lan moo ko jaaxal ci réseaux sociaux yi ndekete Macky Sall à part dugg seetaan laay fu maam mënuñ ci gàtt parce que seen jamono teeluñu baabaka maa leen yu baax teeluñu dugg ci biir internet xale yi nag comme dañoo woo xale yi ne leen kaay leen ngeen gérer lépp lu nekk parrainage yi ngeen enregistré ko xale yi enregistré ba pare yore doublon yi seen biir portable léegi nag xale yi nekk ci Benno Bokk Yaakaar bi Benno Bokk Yaakaar moom fii lay jaaree tas ndax Macky Sall ñi muy investir te xale yi nee nañ ma ci biir APR ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu ne ma maam ñu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar Macky Sall investir nañu ci biir liste bi dañuy ànd ak moom ba jeex tàkk groupe ñuuxu tëdd leen nelaw groupe ñuuxoo ngi ci biir listu Benno Bokk Yaakaar bi parce que tey Benno Bokk Yaakaar xaw ma woon ne ne ñàkk ay candidat moo tax ñu jël Coura Macky ne ko kaay investir la daal Sow maa lay nuyu bu baax a baax merci beaucoup Coura euh, Khoudia Idrissa maa lay nuyu. léegi amuñu candidat yu mat de man maa leen koy wax amuñu woon candidat yu mat dañoo njàmbaas te muti ji ci booy yi pour neexal booy yi pour booy yi mën a ñëw bokk léegi am na ñu jot a tàggoo fii. ngeen foog ne dañuy dem déedéet yéen a ngi xam euh, sëriñ boobu doon rab sëriñ boobu doon rab te du wax tur bi. moom tamit dama leen vérifier parce que Macky Sall amul il a pas il a plus personne pour investir sur sa liste loolu mu nekk problème bi il n'a pas assez de personnes pour investir sur sa liste Macky Sall tamit dafa créé waat yeneen liste parallèle yoo xam te ne dafa wut ñu mu fay investir ay figurants y a des figurants partout léegi xale yi ba ñu xamee ne ne Macky Sall dafa jaaxle il a du mal à trouver des gens qu'il va investir pour l'Assemblée nationale L'autre tax ngeen gis Coura Macky ñëw parce qu'il n'a pas le choix Macky Sall képp ku am ñaari nit ku koy seetaan bu demee ci Macky Sall la da koy recruter sauf la màccu a ndax amul carte d'identité Sénégal loolu ko teree bokk ci liste Macky Sall bi léegi na ñu bokk ci liste Macky Sall boobu yoo xale ya xale yu yal na leen yàlla fay xale yi ñu ne démb six xale ñoo ma defal appel vidéo ñu toog di def conversé ñu ne ma maam bu leen am dara lu leen métti ñun lu ñu Macky Sall la def Sénégal ak nu ñu toroxalee ak ñu ñu ñàkkee du ñu xaar sa président Ousmane Sonko du ñu fajal suñu soxla ñun ñooy dem infiltrer ndayu biir APR lu mu joxe ñu lekk fu mu dugg ñu dugg ba xam la fa nekk ñun ñoo dem nekk ji suñuy propre renseignement généraux démb laa am ay xale yoo xam te ne dama leen faa.

tellement démocrate, d'une manière tellement hyper efficace. ñaanaa la Macky Sall tiitoon naa mais démb laa gën a ñàkk tiit yéen élection 2019 équipe ñoo ko ba ñu demee ba ca stade ba Macky Sall fayal leen paas ñu yegg ba ci biir mu foog ne wa APR la indi ba mu commencé wax ñu ne ko équipe ñoo ko ñëwaat na. équipe ñëw ñëwaat na tey la xeex bi nar a neex moo tax ma ne Dior Diagne <laughs> Dior Diagne da ñëw pour maîtriser internet bi ak Macky ñun dañu ñëw pour maîtriser seen coalition bi seen coalition bi dañu ñëw pour maîtriser te xale yi dañoo anticiper parce que xale yi ba ñu xamee ni Macky Sall nee na day yónni ay candidats ci biir Pastef la xale yi anticiper ñoom dem infiltrer ndayu Benno Bokk Bakaar pour xam la fa nek yeb maîtriser ko da nga ñëwoon pour maîtriser ñu ñun ñoo lay maîtriser cette phase ci parce que en attendant que xalé di lijjante la xew Benno Bokk Yaakaar ñun ku dugg biir Yewwi Askan bi ne fay dem transhumé ñu nokko ko ñun population bi on commence à te maîtriser donc je vais le dire en français parce qu'apparemment tu représentes des gens tu représentes l'Occident en parenthèse Macky Sall avait décidé d'infiltrer l'opposition en envoyant des faux candidats, des faux députés, des faux futurs députés. Mais maintenant, Monsieur Macron, on maîtrise les faux députés de Macky Sall parce que la population sénégalaise, si par hasard il y a un, député qui se présente pour Yewi Askangi et qui transhume vers Macky Sall, on lui porte les fesses. Deuxièmement, nous-mêmes, la jeunesse sénégalaise, on a envoyé des renseignements généraux dans le parti Benno de Macky Sall pour l'infiltrer. Donc, Macky Sall risque d'avoir des candidats qui vont représenter l'opposition dans sa coalition. Monsieur Macron, c'est la jeunesse sénégalaise maintenant qui va trancher. C'est fini. Les mandats à durée indéterminée des dictateurs sénégalais, en particulier Macky Sall. Manélène, sénégalais, sénégalaise, je vous appelle, j'appelle tous mes frères sénégalais à acheter des gros chiens. J'appelle tous les maires à acheter des gros chiens pour sécuriser leur ville. Parce qu'il y a des milices avec des armes qui sont rentrées dans le pays pour attaquer la population. On va se défendre comme on peut. On va se défendre avec les moyens de bord. wow faut que ne leer na ci baayam baayam bu ndaw mi nekk ci kaw voilà Brigitte yàlla na fi yàgg te wër moom moom du ma je wax dara ndaxte sama xol bëgg na c'est c'est une femme boo xamante ne je lui dirai rien mais jëkkër ji nañ ko wax dara comme ça comme moom mooy bàyyi Macky Sall dina xaw a réglementé Macky Sall nee nañ leen armée française mu Sénégal bu leen tiit bu leen ragal wut leen ngam doom maamu xaj teg ci koñ yi koñ bu nekk war naa am lu ma 200 chiens. sama xuloo waale baat j'ai vu que des fois il m'écoute et ça me plaît quand on m'écoute ça me fait plaisir ne leen sama le baat parce que génne un milliard pour financer jeunes je lui demande de prendre une partie dans l'argent et d'acheter des chiens et de créer des maîtres chiens dans le quartier Allez yi pour assurer sécurité comme ça quelqu'un d'autre agressé agresser. des chiens qu'on va dresser nous-mêmes il est temps ngeen newal ma sa mon ami et le président Ousmane Sonko ngeen ne leen ñoom comme leur vie est en danger am nañu droit créer police municipale parce que chaque mairie a le droit d'avoir une police municipale jël leen xale yi ñu assurer sécurité yi nekk ci bi à la guerre comme à la guerre. fi ñuy jëm Macky Sall ndox amu fa dañuy prévoir prévenir vaut mieux que guérir.

On va commencer à examiner tes parents un par un, un par un, un par un. koo ci lebal xaalis nangu pièce d'identité dem signer à sa place on va l'appeler on va l'appeler c'est pourquoi l'assassinat sera normal d'ici peu de temps Idrissa ñun ak Macky Sall ñun ñoo sekkul assassinat Pirane maa lay bu baax a baax ñun ak Macky Sall yéen a ngi wax moom assassinat Macky Sall man boo leen ma wutalee kër gu nekk ñaari xaj ñetti xaj sàcc bu nar a ñëw dugg xaj yi tëbali ndeyam ah xaj yi bu ñu commencé sàcc agresseur yi ak ñi yore pistolet yi Macky Sall di yónni parce que xaj boo tolloo fu sori yore pistolet balaa nga yegg si xam na kuy kuy waaj a ñëw. équipez-vous des chiens de chiens am xaj du dëri yéen Sénégal am ngeen droit am xaj am xaj du dëri pistolet ngeen dem laaj ji Macky est-ce que vous avez le droit mais am n'est pas un délit ñu ngi sàcc seen doom solution ñu ngi sàcc xale yi solution ñu ngi violé ñu ngi rendi solution la solution pour cette insécurité c'est de wut violeur comme ça bu violeur bi day dem le ko monde bu ñu façon faire bu am bi dañuy dresser repérer vous bi dañuy dresser repérer drogue parce que drogue bi tamit agogo drogue bi day campagne équipez-vous de chiens. y'en ñi nek ci koñ bi di nek di joy. Nan koñ bi amul sécurité koñ bi amul sécurité koñ bi amul sécurité jënd leen ay ci koñ bi léegi koñ bi am sécurité ça leen baax la léegi koñ bi am sécurité. Vous la ba chien c'est pas pour rien tubaab bi de wuti ji ay maître chien ñuy garder seen ville

maison bu nek 1000 francs par ou wala 2000 francs par équipez vous de maximum de chiens parce que fa ngeen di dem Macky Sall nga jënd arme fu Macky Sall vous ñetti arme arme équipez vous de chiens chiens yo xam sax fu arme ku lekk amuñu ko luwe lañu gën a taal waaye euh, lañu gën a taal naar gis nga xaj ça nécessite pas grand chose xaj moo gën a nekk lu gën a yomb nu réer ci àdduna jaaykatu yàpp yi nekk fii nii jaaykatu yàpp yi nii dañuy sàndi ay yax jaaykatu dib yi dañuy sàndi ay yax toggukatu ceeb yi dañuy sàndi la ñuy sànni ngeen di jox ña c'est que ñun dañu mënut a recycler en fait on ne sait pas recycler moo tax ñu sonn fi ngeen di dem ba def li mu leen wax Macky Sall dafa préparé moom chaque jour jëndaat na yeneen arme teg chaque jour mu ngi jënd ay arme pour préparer troisième mandat poste bi nga xamante ne daf ko bëgg a jël récupérer ko jox ko Alioune Sall c'est pour le troisième mandat candidat il m'a créé c'est pour le troisième mandat J'ai un frère qui qui vend des chiens, mais il ne voit même pas qui l'acheter. Problème du moi, quand tu as des chiens, tu as deux choix. Tu peux vendre en même temps. Tu peux les louer, am ñuy loué xaj yi bi ñu dem garder kër gi ñëw toog yow nga jël xaj nga téye ko entreprise de sécurité ku soxla sécurité ku bëgg lii da ngay ñëw indi xaj bi tu gardes tes chiens et tu as de l'argent tout le temps

ma teg ko sama page amana suba rek sama copain train dina ko contacter niko kay indil xaj yi dorénavant ñoy garder koñ bi maire bi de la fay. parce que la ci sécurité maire bi la bok ci sécurité koñ bi la la te maire bi moy assurer sécurité koñam ni mi assurer hygiène koñam nous lay assurer sécurité koñam Casamance vous faites pareil. rebelle yeen ngi leen bëgg a rey rebelle yoo xam te ne Macky Sall moo leen di créer ñëw indi na leen dem leen dugg avec wut leen ngandu maamu xaj ñu nekk ci bopp koñ ba bopp koñ xaj yoo xam te ne dañuy flairer rebelle buntu kër yaayu président Ousmane Sonko tegal leen ma fa cinq xaj parce que gisoon nañu ay nit yu ñëwoon bay infiltrer ba ñëw dugg ci biir këru yaayam président Ousmane Sonko ba bëgg kaa attaqué leen kër gaa xaj parce xaj flair ba mu am. sacc bu ci buntu koñ ba bala muy sacc ci la nek ci biir cerveau enregistré à la guerre comme à la guerre gis nga Macky Sall koy togal dañ koy tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ba muy génn ci palais bi ñu mom ba ci palais bi fekk na Facebook

d'assurer la sécurité du Sénégal en tant que président de la République. Il crée l'insécurité. Il divise pour régner. Prenons nos responsabilités avant qu'il allume le pays. police di nga nervi yi Macky Sall jëloon ci temps wu émeute yi parce que attendez-vous ko mu amaat yeneen émeute nerve yi boo leen gisee ñuy dugg ci kër yi yore ay pistole boobu dafa amoon xaj kër gi bu amoon ñaar wala ñett wala ñeenti xaj nervi yi du ñu am audace bay dugg ci biir kër yi ba naan dañuy tiire nit yi du ñu am audace ba naan dañuy dugg ci biir koñ bi ba naan dañuy tiire yi préparez-vous parce que ça va chauffer pourquoi ça la macc doo gisoon ngeen ko dafa bàyyi woon internet dem toog fële mais ba mu déggee ne coalition bi ngi ñëw muy xeeñ neex Dior Diagne ne ko kaay toogaat di saagante nit yi tey di ngeen gisaat encore yeneen nit yuy juddu parce que on s'approche du palais Macky Sall il faut mu renforcer ah espèce de sécurité à la con boobu noonu aussi bien ci réseau sociaux bi que sur le terrain mais jitu nañ ko ci biir partem parce que là on maîtrise maintenant APR donc APR mo ñu maîtriser ñun ñoy maîtriser APR on les maîtrise très bien fu mu nekk nii tëdd leen nelaw yeewu Macky Sall xam naa bu xamee ne parrainage mi yëpp parrainage yu APR yëpp am nañ ko en sécurité dina jaaxle maintenant li ma desee si puzzle bi mooy ñi Macky Sall lebal xaalis yëpp te parrainé wu ñu Macky Sall signé wuñu parrainage ñoom laay recensé pour xool Macky Sall réellement ñaata parrain la am parce que c'est très facile nga ne nit ki kaamale bala ñaat dërëm mu jël ñaar dërëm bi jox la pièce d'identité am wala nga dem ca banque ba wala ca PAMECAS ba ah PAMECAS yu Youssou Ndour ba yooyu yëpp ngeen dem jël pièce d'identité nit yi parce que foofu am na signature yi ngeen scanné ko def ko ne nit ki moo signé te fekk signé wul parrainé xalaatoo leen woon ne dañ leen tracé. léegi man Macky Sall dama koy traché parce que comme dafa ñàkk fayda bay tricher ay élection Macky kenn gisul waa APR génn ci mbedd bi neen Bachir neen dañ dem désabonné ci page u page u ah yeewoo nga si sa sa Sonko dooma euh, Macky Sall yéen gis ko ci mbedd bi ku bokk ci Macky génn ci mbedd bi ne day pare ne man de gisuma non Pamecas Youssou Ndour moomu ko dafa am Pamecasam dafa am mutuelam dafa am mutuelam man maa koy woy Pamecas dafa am mutuelam dafa am mutuelam dafa am parce que bi mu bëggee créer fekkee ma ci boole <laughs> dañuy remonter dossier ci la créé woon mutuel ba pour mën a tricher fekkee ma ci boole am ay pièces d'identité moo tax ba ñuy sàcc nit yi ah di tricher dafa yàgg. fekkee ma ci boole mutuelu fekkee ma ca boole boobu noonu ah c'était pour tricher des élections léegi yéen maire yi nga xamante ni seen avenir moo nekk en jeu parce que pétrole bi am ngeen ci wàll Alioune Sall sàcc na leen seen pétrole ba ubbi ci banque te ndayam mosul am banque baayam mosul am banque maamaati maama mosul am banque amul kenn seen mbokk yi commencé am banque mais ndekete pétrole bi sëñ Mansour si Jamil ne day taal dëkk ndekete pétrole mun na may nit banque ndax Alioune Sall am na ci banque ba bëgg a sàcc sax ñun poste bi ñu moom def ko encore bopp banque boppam léegi ñun bu ñu yeewulee dootuñu yeewooti pourquoi dootuñu yeewooti mu génnee lu nett yi sax jàkkaarloo Sénégal yi li nga bu ñu yeewulee actuellement c'est fini julli tubaab fu mu nekk nii vous avez tout pour réussir Macky a tout pour perdre plan B, ni ko décrire à partir de demain ngeen recruter nar frère am président Ousmane Sonko ta vie est en danger Bat, sa vie est en danger tay ñepp ñi nga xam dañu bokku leur vie est en danger léegi mam ba mu annoncé ne ku dugg yeewi du mën a transhumer dem sottil Macky Sall sëriñ Baara Dolli ci la annoncer né mom du dugg du dugg de parce que xamna né ne bu duggee bu demee sottil Macky Sall dinañ ko noq noq noq ba muy bëgg dé